waa gars yi <clears throat> maa ngi leen di ziyaare bu baax a baax ci dimanche di leen jox seen wàccuwaay maa ngi leen di ziyaare di leen jox seen wàccuwaay hmm, ñu may leen tuuti rek xam naa ñëw ñu <clears throat>

ndeysaan mama patriote benn soxna su baax la moom it comme ni ñëpp amee cofel ci sonko rek mu am cofel ci sonko ndeysaan xale yi ba ci bindu bi nii da leen daan may paas di leen may njëgu timbre pour ñu dem bindu ji daray terroriste daray bandi daray saay-saay nekkul ci ndaw soos léppam dafa jub xocc du wax lu bon du jëf lu bon du pexe lu bon waaye xam nga comme ñun moom réew mi ñu nekk réew muy promouvoir médiocrité la te di xeex excellence maanaam contraire àdduna bi la Macky sàll di doxe moom bu nit ñi di dox pour wut ndam ak am succès ak jëf lu baax moom mi ngi wut nu mu pexelee doomu aadama yi ak nim leen ak nim leen tëjee kaso ak nim leen reyee mama patriote l'histoire retiendra nee naa leen quatre cent et yi nekk ci kaso bi fàttaliku leen ne Macky Sall bi muy ñëw ci bopp nguur gi histoire u Firawna lañu doon wax waaye comme amul xam-xam waxuñu yaa bani israila waxuñu nitu israil yaa bani israila ñi nga xam ne ñooñu la firawna doon torturé nabillahi moussa wàcc ci ñoom waxul lan la yàlla yónni woon nabillahi moussa waaye comme moom il nous avait fàttali nañu Macky Sall fàttali nañu ne nabillahi moussa à un moment donné et et d'ailleurs je encore vous dire que dama leen di leeralal ne amul benn njiitu réew bu ëpp nabillaahi Moussa doole bi yàlla sàkkee addunaam bi ba léegi amul benn njiitu réew boo xam ne ci àdduna bi yàlla sakk na ko te mu ëppoon nabillaahi Moussa doole amul fenn maanaam réew yi yàlla sakk ci àdduna bi yépp Égypte bu ba bu Firawuna moo ci ëppoon doole firawuna moo ëppoon doole te defe naa wax nañ leen histoire firawuna à un moment donné il a il a fait des années ay ay at la fanaan ci cimetière pour rek xam li nekk ci réewam pour xam njiitu réewam yi donc firawuna pour ñun ñi ko xam xam nañu ne c'est quelqu'un c'était quelqu'un de très différent de Macky donc Macky Sall amul sax daanaka bu ñu nee puissance amul puissance Macky Sall amul puissance amul xam-xam donc ñaari défaite la boole donc pour ñuy wax sénégalais yi rek ne défaillant lañ ko séqal te incha allahu rabbi défaillant moom jëflanteeg moom la rek ngeen baal ma gars yi fi ma nekk tey day taw lu baree baree baree baree baree ba voilà xam nga Macky ak doole bi mu am ci àdduna yëpp bi mu yaakaar ne la am te amut dara xool leen fi mu mujjee ak doomu aadama yi ay tëj kaso ay nervi ay ay ay naa naa ne ay bandi yoo xam ne aussi jox na leen ngànnaay ay quelques-uns et il n'a toujours pas compris que dafa daanu ci mission Macky dafa fayit maanaam dafa daanu fi ñu ko doon xaar dafa daanu dafa raté mission bi ba xalam et il n'a toujours pas compris. Macky n'a toujours pas compris que il est face à une population déterminée. te gars yi du wax bu gudd de waaye population bu déterminée dara mënu koo daan ci àdduna bi euh, tey nag defe na Sénégal yëpp yëngooti na. xam nga yàgg nañ leen wax ne leen Marème Faye Sall xel bi dafa dem yàgg nañ leen wax loolu yàgg nañ leen wax ne xel mi nekkatu fi xam nga waxoon nañ leen loolu à un moment donné elle avait perdu la tête ndax gis ngeen ko ba ci mbooloo un deux trois mu lëmbal un deux trois mu yëngal moom noonu lay def un deux trois mu yëngal noonu mu gaawee yëngal nag noonu la gaawee lamb te noonu la gaawee joxe xam le xam ngeen fi may waxee li ngeen dégg tey ñu koy layam layame ci réseaux sociaux yi lu am la de c'est que xam nga ñoom dañoo yàkkamti ñi ko jëflanteel ñoom dañoo xaw a yàkkamti ñoom dañuy parax paraxe te xamuñu ne ñun dañuy yor ay ngànnaay yu rëy a rëy a rëy te duñ ko gaaw a génnee dañ leen di bàyyi ba ñu commencé dof dof lu ñu génnee ngànnaay waaye li ma leen man a jox. li nga xam ne man naa leen ko wax tey waaw existe na loolu ñuy ne sextape Marème fay Sall te maa ngi nuyu waa Suisse waa Suisse li junj doy na boroom xel maa ngi nuyu waa Suisse te aussi euh, pour ñi bëgg a xam voilà donc Marème affaire u daay daf ci bokkoon maanaam jigéen ay jigéen la ko sekkaloon film bi pour yéen ñiy xaar mu doon xale bu góor bu koy dëbb du loolu de xam nga Marème Baye bisexuel la ñoom ba daanaka ñoom ñu bari ci ñoom seen groupe bi ay bisexuel lañ maanaam bisexuel mooy lan mooy ñi bëgg góor ak jigéen donc ba ñu demee di enquête ci mbir mi nga xam ne moom moo am ah problème am na de te xam naa ne Marème moom bu ko déggee tey du nelaw parce que xam na li ñuy wax maa ngi nuyu nag waa Suisse junj doy na borom xel maa ngi nuyu waa Suisse bu baax a baax a baax a baax waaw lu existe la de voilà Marème lu existe lañ leen di wax nii xam nga seytaane moom ba mu duggee ñenn ñi maanaam foo gisee doomu aadama buy sàcc amul dignité doomu aadama buy rey nit amul dignité doomu aadama buy sekk maanaam niroo waaleem amul dignité elles sont ils sont ils sont et elles sont capables de tout waaye xam leen ne lu am la de lu am la de ñoom bu ñuy dof doflu yéen ne leen tekk rek ngeen bàyyi leen xam nga lu nekk ak temps waxoon nañ leen ne am na mbir yu bari yoo xam ne dina yëngatu waaye dafa am ay kilifa yu mag yu nekk ci réseaux sociaux yi ñu ne nañu def ndànk rek lu nekk waxtoom dina jot chaque chose à son temps ba ñu dolli leen ne leen chacun aura son tour chez le coiffeur yokkoon nañ leen boobu voilà donc boobu lañ leen di baaxee tey ñu ne leen ñu def ndànk rek ne teg ndax loo gis rek waxtu bi bu jotee day daal di yomb te incha allahu rabbi ah pare leen de yéen ñi bëggul umu tamit ngeen sol ay lunettes parce que dégg naa vidéo yi rafetul de rafetul de c'est pas beau vraiment e bu ñëwee j'ai peur que vraiment dignité Sénégal day wàcc ba zéro daal ndax lu tolloog premier dame di jëflante ak ay jigéen moom di lambante ay ween ak ci defante nii defante na le loolu dafay doy waar lool donc nañ ko bàyyi xel daal waaw en tout cas sextape lañ leen wax xam nga boo leen bàyyee xel sax gars yi bi ñuy wax sextape nanguñ cee euh, spécifier porno masculin wala féminin xam nga maanaam spécifié wuñu léegi nag vraiment doy na waar daal doy na waar lool daal vraiment xam nga doy na waar lool parce que loolu daanaka li koy indi lu bari ci jigéen day fekk borom këram maanaam ngemboo glace wala ay bagaasam du dox daal xam nga parce que Macky xam nga moom it liñ koy waxal dafa bari voilà dafa am feebar waaye nag vraiment dina doy waar de vidéo bi moom bu génnee dana doy waar waaye nañu concentré wu gars yi ci li nga xam ne moom mooy le président Ousmane Sonko ak projet bi nga xam ne moom la ñu indil xam naa ñu bari ci ñun dinañu yaakaar ne gars yi mën nañu nasaxal projet bi nga xam ne moom lañu tàmbali waaye peut-être ils n'ont rien compris ndax yàlla noppi na démb tey soog a ñëw damay wax xale Sénégal yi préparé wu leen yàgg naa leen koo wax nee naa leen lépp loo gis ci àdduna rek mi ngi mel ni lettre nga koy bind xam nga ñu ne boo defee introduction bi nga bind li nga xam ne moom mooy li important yëpp il faut mu am conclusion donc loolu dafa nekk aussi ci viiw dundu àdduna dañu pare benn combat ak ay saay-saay ak ay bandi yoo xam ne dañu luubal ay milliards yu bari ci réewu Sénégal li ñu luubal ci ay milliards kenn xamul lu mu toll le président Ousmane Sonko moom mooy benn doomu aadama benn politicien bu mën a taxaw dans l'histoire du Sénégal mu ne mësuma luubal dërëm loolu doo leen ko déggaat ci Sénégal loolu benn wax la rek doo ko déggaat te loolu daanaka dafa farankulaay wax gi wax ji yëpp daf ko farankulaay bu leen yàkkamti yéen ñiy woote gat sa gat sa bi bu leen yàkkamti daf leen dànk c'est bien faites doucement xam nga boo yàkkamtee da ngay def erreur imaginel tey ñu yoroon vidéo yi daal di ko génnee génnee li metti yëpp mu jàll déedéet da ngay bàyyi ba ñoom fa ñu yaakaaree ne fa la ñu amee wax les jour les plus importants pour eux jours yi gën a important euh, gis nga journaliste boobu am na journaliste bu nekk TFM boo xam ne aussi ah xaw ma ndax bëgg naa dugg sax ci leeral yi parce que bëgguma bëgguma kii quoi bëgguma bëgguma falampàcc wala indi ay yenn leeral yi comprendre bëgguma indi yenn leeral yi parce que bëgguma wax ma si ba naaru laaj waaye daal am na benn taskatu xibaar boo xam ne ca TFM moom it gars yi génneel nañ ko ay affaires yoo xam ne dañ ko ko doon surux ci ginnaaw c'est c'est extraordinaire ah y des choses qui sont dangereuses dans ce pays là ñun suñu réew mi am na yu garaaw a garaaw a garaaw yoo xam ne mi ngi fay dox bis bu génnee ah république bi dana yëngu de maa ngi leen di jegalu nag wax la rek waxin bés bu génnee république bi dina yëngu gars yi il faut ñu comprendre ne on est face à des personnes indignes boo xoolee réewu onkul Sam réew mi nga xam ne ñoom réew moomu moo exemplaire ci ñoom réew oncle Sam la wax moo gën a exemplaire ci ñoom réew onkul Sam boobu président bi day sukkal doomu aadama yi di leen jéggalu day sukkal doomu aadama yi di leen jéggalu léegi doo ma wax lan moo tax gendarme yi bloqué convoi wu Sonko la gendarmerie nationale du Sénégal doo ma wax lu tax ñuy bloqué convoi wu Sonko et retourné moto yi lan moo tax doomu aadama moom amatul droit wëndeelu ci biir Sénégal maman patriote mu tudd madame Awa Diop ñu ngi koy masaw de suñu yaay ju baax jooju ndeysaan mu nekkoon jigéen ju baax mu nekk jigéen ju sell nee naa leen dafa daan dimbali xale yi ndeysaan di leen may paas pour ñu bindu ji di leen may paas pour ay timbre muy nit ku jub nit ku dul sàcc dem nañ ko tooñ jëli ko këram jaay ko doole comme ni ñuy defee toujours rek seen jaay doole boobu ñuy def quatre cent sénégalais yi ñu dugal ci biir kaso bi ah je ne sais pas pourquoi am na ku ne waaw lu tax billaay xamuñu ko jaay doole rek la du leneen amul leneen a ah. jaay doole rek moo fa am ndax wax dëgg yàlla waxul deful waxul deful partagé wul duggul ci dara waaye xam leen ne dinañ ko duufalal dossier am torop ndeysaan dinañu jël dossier ñu defal ko cinq cent chefs d'accusation waaye gars man de man Ousmane Tounkara laa wax je préfère aller en prison et sortir héros que de vendre dignité man la wax nag je préfère aller en prison et sortir dignement que de vendre dignité te gëm naa ne tous les patriotes sont de la même manière waaw dañuy laajte rek lan moo tax Ousmane Sonko gendarmerie nationale bu Sénégal ñuy arrêté xale yi ndeysaan ay mu sell ndeysaan xool leen de ah yàlla yàlla bu na yàlla lu mu décidé doomu aadama mënu ci dara ndeysaan yàlla noppi na gisoon nañ fi firaawun gisoon nañ ko fi de Macky on avait vu firaawun assemblée nationale bu Sénégal criminaliser de l'homosexualité au Sénégal refusé par la majorité <laughs> waaw yan xanaa nag war ngeen mën a noppalu mbirum góor jigéen mënul des ci manul denc ci assemblée nationale parce que assemblée nationale bi genn wàllu député APR yi ay góor jigéen lañ xanaa yéen déggu leen fi yoon liste góor jigéen yi genn wàllu député APR yi ay góor jigéen lañ soxna président wu de la république bu Sénégal bisexuel la bisexuel dafa bokk ci genre genre boobu ngeen dégg ngeen di dégg soxnay président de la république Marème fay Sall dafa bëgg góor bëgg jigéen li may wax nii ñi ko xam-xam nañ ko comme Dior Diagne Dior Diagne mel na mi ngeen xam Sulaar jabaru Antoine Diome mais bisexuel la bisexuel ñoom loolu lañu yan léegi lan ngeen yaakaar ne moom mooy tax ñooñu man leen paaseel ñu leen di paaseel ay loi criminaliser góor jigéen loolu man taam manoo seq ak góor jigéen nga ne ko dañu dem ñu dindi góor jigéen mu def mu doon lu illégal xam nga boo ko seqee ak ay mbaam bul xaar lu dul weqe weqe rekk nga ci xaar quand tu es face à des ânes à des donkeys weqe rek ngay xaar bul dugg ci leneen bul xaar leneen loolu la ñu am pour wax leen ko dama ne le président Ousmane Sonko lan moo tax nanguwuñu ko bàyyi muy def ay tuuram muy def ay doxantoom comme il le faut bàyyi doomu aadama yi tranquille acharnement bi jaru ko yàlla noppi na yàlla noppi na c'est ça la vérité yàlla noppi na on est dans on est on est dirigé par des personnes qui n'ont de dignité dañu am ay nit yoo xam ne dañoo jiite te amuñu dignité te nit bu amul dignité bu la jiitee il faut s'attendre à tout nit bu amul dignité bu la jiite il faut s'attendre à tout gars ñu ngi dégg fan yëpp ñuy wax ay mbiru dialogue dialogue lañu dégg ñuy wax je pense que si on bien compris te ñun ñi xam ba pare xam nañu ne Macky Sall il dialogue toujours quand son dos est contre le mur waaye damay wax ak doomu sénégalais yi ànd ak seen sago Macky Sall nous a une fois deux fois, trois fois, quatre fois et cinq fois dit qu'il réduira l'opposition à sa plus simple expression. donc je pense que Macky moom li mu diglante ak ñun mi ngi ciy dox léegi nag laaj bi mooy ndax sénégalais yi ñoom li ñu diglante ak Macky Sall ñoom it dinañ ci dox gars yi c'est important pour ñu xam ne Macky Sall nekkul nit koo xam ne dañu war a toogati di gee teeg moom Macky Sall ñii di dem di ko gis yëpp faalewu leen soxlawu leen benn nit la soxla ci àdduna bi mooy Ousmane Sonko te Ousmane Sonko boobu Macky Sall baatam la soxla sur le plat pour mu rendi ko pour yéen sénégalais yi yaakaar ne Macky mën naa négocier ak diw wala ñu toog ñu xool ñun ñëpp ñu waxtaan ñu xool ñu doxal déedéet c'est pas ce genre de Macky Sall c'est un lâche makki Sall bu mënee jekk Ousmane Sonko day jël bakkanam il faut sénégalais yu bàyyi loolu xel il faut ñu bàyyi xel ne Macky Sall bis bu mënee jekk Ousmane Sonko. dafay jël bakkanam on n'est pas dans un moment de dialogue on est dans un contexte de répression Macky bëgg a répré euh, maanaam euh, tënk population Sénégal donc ñun lenn rek lañu ñu mun mooy résister on doit résister contre la dictature de Macky Sall point barre amul leneen loo xam ne dañ ko ci war a lijjanti ndax boo nekkee ci ab réew réew moo xam ne ka ko jiite bandi la ka ko jiite délinquant la amul dignité réew moomu dafay jot waxtu boo xam ne dangay jël say responsabilité te jël responsabilité yooyu dafa jot pour ñun waaw dafa jot dafa jot Sénégalais yi jël seeni ay responsabilité ndax ki ñu jiite du nit koy négocier déedéet te du nit koy amal jàmm non non nit la koo xam ne boo waree jàmmarloo ak moom da ngay jàmmarloo ak moom boo waree xeex ak moom nga xeex ak moom loolu mooy suñu réalité dëkk réew mu ne dëkk bu ne ak réalité waaye gars yi ñuy ñaan ñëpp rek ñu continuer adhérer ci nemmeeku tuuru président Ousmane Sonko bi te ñu waajal suñu bopp. la combat de la fin def nañu round one ak Macky Sall maanaam il faut ñu bise ko il faut ñu bise voilà def nañu combat numéro un combat numéro deux bi moo des def nañu deux sax daanak fi mu des fi mu ne nii nii nii rek daanaka li ñu desee rek mooy cooki fin te cooki fin boobu incha allahu rabbi bis ñu ko amalee rek suñuy problème jeex tàkk loolu mooy dëgg gars yi maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen joxaat dig daje incha allahu rabbi suba tey dañu woon rek ñu dugg ndax le président Ousmane Sonko mi ngi ci nemmeeku tuur bi te actualité yi bari na te actualité Sénégal moom daanaka boo tardé benn fan sax téeméer ñëw sa ginnaaw donc xam leen ne ñu ngi pare incha allahu rabbi bu subaa ñu ñëwaat amal ak ak waxtaan waxtaan bu gën a yaatu ci li nga xam ne moom mooy actualité dëkk bi ak ñu gën leen waxaat encore ci sextape mag euh, Marème Faye sàll bi ñu gën leen cee indil ay firnde ay détails quoi voilà Marème Faye Sall nag du moom rek am sex tape ci dëkk bi ah sex tape waa Macky yi bari nañ sex tape de waxoon naa leen ko fi nee naa leen <laughs> Abdoulaye Daouda Diallo sax am na fi audio audio yi bari na fi sex tape yi bari na fi voilà donc nañu pare rek incha allahu rabbi ba suba ak jàmm ak salaam wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.